nekk bu ministère euh, de l'éducation nekk nekk itam chargé de communication bu ministère boobu ñu fas ne waxtaan ak moom ci lii di Covid 19 ak ñoom fan nañ toll ci taxawaay bi gannaaw bi ñu tegee euh, classe yi boobu ba léegi Mouhamed Moustapha Diagne ñu ngi lay nuyu. waaw suñu laaj bu njëkk rek day jëm ci fi mu nekk nii actuellement ban taxawaay ngeen am gannaaw bi nga xam ne wéyal nañ. Euh, fu ngeen toll ci taxawaay bi. jërëjëf euh, Ndofène waaw taxawaay bi rek mooy programme apprendre à la maison parce que tey xam nga site bi euh, bi ñu teg muy seen ressource euh, nekk ci éducation point sn mm-hmm. cours yaa nga fa am nañu aussi canal TNT canal 20 TNT boo xam ne ay cours lay joxe ñu ne ko RTS mm-hmm. am nañu aussi yeneen ay télévision TFM i Euh, télé école ñu ngi joxe également ay ay cours donc parents d'élèves yi mën ca jot am na aussi fii zone yi amul courant ak euh, internet zone yooyu da fa fay yóbbu euh, donc ay ay version physique maanaam ñu ngi imprimer EFI ñu ngi en principe ñu ngi imprimer cours yi mm-hmm. di ko jox xale yi donc c'est dire que donte tëj nañ école yi njàng bi moom ñu ngi continuer ci biir kër yi mm-hmm. waaw euh, système mu jàng boobu ndax yaakaar ngeen ne dina nu mu tuddati euh, yenn kii yi quoi yenn infrastructure yi dafay manqué am na ñoo xam ne peut être courant sax amuñu ko ñoo xam ne ñu ngi naan connexion bi day manqué est ce que xalaat ngeen euh, comme yenn zone yu reculé yi ci dispositif yooyu noonu. waaw loolu la doon wax léegi parce que zone yooyu comme du am affaire internet mbiri internet yi donc dañu wax nañu UF yi dañu imprimer cours yi. bu ñu koy imprimer donc ñu ñu ñu ñu ko parents d'élèves yi comme ça ñu jox ko xale yi et puis euh, au téléphone aussi demande nañu enseignants yi ñu woo élèves yooyu ak parents yooyu di leen guider ci ci ci cours yi donc sans compte nag am na ay leçons yoo xamante ne jàngoon lañ ko ba pare am na aussi ay xam ne ay exercices lañ euh, mën nañu continuer di ko di ko def euh, comme ñoom amuñu amuñu internet. Mm-hmm. démb gis nañ benn rumeur rumeur boo xam ne mu ngi doon daw euh, ci réseaux sociaux yi la wax sax euh, benn information selon laquelle euh, cours yi dafa war reprendre le 4 mai dégg nañ la sax seen ministère def na ci benn communiqué est-ce que mën nañ si ñëwalaat waaw fan yii ñu ngi dégg communiqué boo xam ne dañuy wax ni cours yi dafay reprendre 4 mm-hmm. ah, mais loolu léegi dafa nekk communiqué boo xam ne dafa nekk information boo xam ne effectivement tax déewu ci Euh, parce que ki nga xamante ni moo tëj école yi mooy président Macky Sall. Hmm. ki moo tëj école yi mooy président Macky Sall. te euh, demandé na euh, ministère yi nga xam ne moom daa ngi jàng ñi muy éducation nationale muy enseignement supérieur ak formation professionnelle ñu waxtaan te waxtaan yooyu ñu ngi koy def depuis le conseil des ministres du 15 avril 2020. Hmm. ñu ngi waxtaan mbir moomu xool toutes les hypothèses. Hmm. su fekkee président dafa tëj école dafa continuer di dafa tëj école yi kat ne am na hypothèse yu ñu mhm. bu hypothèse la boo xam liggéey nañ ci bu fekkee tëj aussi dafa continuer tëj école yi ñun aussi hypothèse la boo xam nañ ko envisagé xam nañ li ñuy def dans tous les cas ñu ngi liggéey ci scénario yi pour que euh, bu feebar bi jeexee ba chef l'État ubbi ubbi école yi su boobaa ñu mën a euh, ñu mën a xool ban dañu dañu xaatee classe xalaat na beneen hmm. euh, parce que ministère am na ñu koy ñu koy waxal euh, te am na ay hmm. euh, léegi bu feebar bi jeexee wante fi mu nekk nii moom moom feebar bi jeexagul li ñu sox li ñu nemee ko sax kay mooy ay cas yokku ñu ngi ñaan yàlla yàlla dakk waaye yàlla tere bu mbir wéyee ndax yéen yaakaar ngeen ba dem utiliser salle de classe yi comme ay comme ay lieu de quarantainement wala confinement est-ce que xalaat ngeen loolu waaw mais xam nga ci quand même il faut que ñu xam ni ni feebar bi ni muy doxee euh, Europe doxewu ko Afrique loolu moom mm. vraiment euh, parce que boo demee États-Unis ñoom wees nañ quarante mille morts <laughs> sax presque un million de contaminés mm-hmm. te ñoom ñu ngi ñu commencé déconfiné yenn état yi mm-hmm. France fi yegg nañ ci plus de vingt mille morts ñu ngi déconfiné euh, Italie yegg nañ ci plus de vingt mille morts ñu ngi déconfiné Euh, donc euh, donc euh, Allemagne et cetera ak Espagne donc te foofu la feebar gën a métti mm-hmm. donc ñun yàlla dogal na def naa ne ci ay six cent cas plus de trois cent ak la la ñu nekk donc feebar yi vraiment comparaison bi mënul mënul bokk te presque ñun ñu ngi suñu te pic bi ay soixante ak cinquante la ñuy wax mm-hmm. donc donc je pense que nekkul loo xamante ne bi mën nañ ko comparer te man de wax dëgg yàlla jàpp naa ne incha allah météo bi après la coupe va va descendre parce que il nous suffit juste ñu les cas communautaires là. ñu ñu maîtriser ko. yi entre les régions gën taxaw ci respect des donc des consignes parce que Sénégal yi bëri sax léegi takk masque te amul au début je pense que yooyu yëpp dina tax incha donc man li ma jàpp daal mooy épidémie bi incha balaa yàgg dina dina dina wàcc bu baax a baax ci réew waaw yal na wàcc kon kon mën nañ xalaat mën nañ xalaat peut-être fii ak ab diir eh, eh, salle de classe yi ñu ubbiwaat leen te accompagner mesures yi ngir ngir xalaat mën a sauver année scolaire bi wala euh, dégg nga baax. maanaam est mën nañ xalaat kon fi mu nekk nii maanaam euh, salle de classe yi ñu ubbiwaat leen peut-être euh, respecter mesures yi ngir mesure barrières yi ngir mën a espérer sauver année scolaire bi. xam parce que bu fekkee ne ci feebar bi dafa dafa yoroon toog juróomi at <laughs> par exemple dama ko wax noonu mais ñun on a appris à vivre avec le mm-hmm. on apprendra à vivre coronavirus donc c'est c'est c'est clair ah waaw loolu moom mooy li leer mais man daal jàpp ma ni ñu yegg Afrique dañu yegg ci yenn niveau yi parce que quand même bu bu ci naroon yegg yegg dafa bu bu yàgg yàgg bi bi nekk daal mooy il faut aussi nit ñi ñu respecter consignes yi nañ tëj jàkka yi jàkka yëpp dañ ko tëj dañ tëj église yëpp vraiment dañ dañ bàyyi affaire dajaloo bi parce que feebar bi bëggu ko te vraiment loolu moom dañ ko ne respect conseil bi ñu ko defee rek am na yoo xam ne duñ fi yëg mais nag buñ ku nekk nekk ci réew moo xam ne ku nekk loolu loolu neex ngay def Euh, wax nga léegi sa biir wax euh, li nga li nga li nga tudd sax li nga tudd jàkka moo tax ma dem si ñu bëri nee nañ nag que ubbi nañu yeneen lieux publics yi jàkka yooyu war nañ leen mën a ubbi te respecter euh, mesure barrière yi est-ce que le moment ubbeeguñ benn lieu public loolu moom aussi nañ ko xam école yi ñu ngi tëj ba ba léegi ñu ngi tëj jàkka yi ñu ngi tëj église yi waaw ah, te ay jullit lañ ñun ñëpp l'islam aussi ci xel lay tegu parce que ñu wax dëgg am na ñu bëri ñoo xamante ne bii sax day tawee yenn taw yi sax dañ ko dem jàkk loolu mooy leer. Hmm. jàkk c'est idéal mais jàkk aussi nekkul loo xamante ne euh, en temps normal euh, donc nekk loo xamante ci ci ci ci obligatoire quand même parce que en temps normal sax tu le temps ñu dem ci jàkk yi donc ñëpp xam nañ ko. Hmm. donc dafa laajte bien l'islam bu xel la bu ci xel jugee rek nekkatul nekkatul islam euh, beneen la boo demee màkk tëj nañ kaaba gi. xanaa kaa bi gisee mu mooy mooy mooy ndeyu jàkk yëpp te tëj tëj nañ ko amul aji màkk je pense que loolu kay c'est un signe assez assez clair signal assez clair rawdu si Seydina Mohamed tëj nañ ko te mooy capitalu l'islam mm-hmm. donc ñun mën na gën a nekk ñu ay jullit donc tëj tëj nañ daal euh, màkk tëj Medina nañ tëj jàkk yëpp bu fekkee weesoo ñu delluwaat ci suñu jàkk lu mu lu mu attanu donc l'islam moom vraiment affaire affaire xel la waaw kenn nit demee xol kenn demee xër affaire xel la hmm. waaw na ko ñëpp jàpp euh, suñu laaj bi mujj monsieur Diagne ndax tey yaakaar nga ne année scolaire yi dinañ ko parce que sore fi mu nekk nii au 4 mai on aura perdu un mois et une loolu tamit yoo xam ne sa jàng jàng ñeenti weer te génn nañ ci affaire année blanche moom dëgg dëgg dëgg dëgg moom sori nañ ko trop trop trop ndax cours yi le 31 on a suffisamment de temps pour pouvoir relancer le calendrier scolaire euh, reculer date examen xale yi mën a rattraper seen cours mën a def tranquillement seen Mouhamed Moustapha Diagne ñu lay jaajëfal di fàttali ne yow yaay directeur de l' information et de la communication bu ministère de l' éducation nationale nekk itam chargé de communication bu ministère boobu di jaajëfal itam mbokk internet yi ñu doon bàyyee